waaye ñi ma toogaloon fii man fii laa toogoon ñëpp dee. route nationale bi moo tax a jógee ñu wut nee nañ ko jaarale waaye fii ba bufti bi di wax soog rek. man kay bi nu mu tojee ak oto bi nu mu ñëwee lépp benn la man kay nelawuma sax man maa ngi toog di manipuler sama portable. gàtt gàtt fii ci accident yi man li ma fekkee lu ëpp cent mille dee nañ ci cent personnes. man bi ma juddoo ba tey accident yu ma mus a fekk yëpp bii moo ci gën a garaaw waaw. naa gëm yàlla métti na torop sama gaay yu bëri day nañ si. walaay ñi ma toogaloon fii man fii laa toogoon ñëpp dee. ban numéro nga toogoon. wax dëgg yàlla xooluma numéro quoi. waaw man si ginnaaw fii laa toogoon quoi man Tamba laa dëkk. Ah. man heure bu may ñëw ma fekk bis bi fees na sax après sama benn ko mu ne booy toogal si ginnaaw. <laughs> dem toog affaire noonu la demee quoi. parce matin la xew ba ay 6 heures bi ngeen bi accident bi commencé ni nga gisee euh, ñi nga xam ne ñoo nekk à côté malgré que yow yaa ngi sant yàlla dara jotu la lan moo nekkoon premier soins yi ci côté population yi. non man instant xaw ma sama bopp sax fan nekk dama miiroon. gisoo fi yëpp a gaañu li yëpp di tuuru sama yaram bi yëpp a métti mun ma xamee kenn ins boobu ñu dem ba hôpital gars yi commencé ma commencé laajte gars yi ku ma laajte mu ne na dee na war ci kenn koo xam ne le de l'accident def na la signe wala bëggoon nga koo jàppale waaw jàppale nañ si bëri kay fekk gars yi seize yëpp bopp seen dow seen kaw ñuy xëcc seize yi di leen génnee ndànk-ndànk affaire la demee quoi. dañ si amoon ay xarit wala si awma si ay xarit sax wante xam nga rek soo duggee oto. Oh. forcé ku nga toogal fa nga xamante moom di waxtaan foofu waaw. ñu ngi foofu. man man pas waaw man dama yoroon bagage bi pour yóbbu ko Kaolack. waaw laalo li laalo la ko waaw. lan yi nga xam ne bëri na fi. man pour man ah chauffeur yi ñoo nelaw quoi xam nga rek pono bi toj na rek pono bi moo njëkk toj suñu moto bi oto bi pono bi fu muy tojee ak oto bee fu muy ñëwee benn la affaire noonu la demee chauffeur woon na distance bi ndaxte moment bi pneu bi di toj bu nekkoon aussi am na benn distance bu ñu limité woon mënoon naa def benn réaction mais comme say kàddu sànq da nga ne pneu bi dafa toj rek oto bi ñëw kon amul benn temps pour def benn mën foo amul foofu man kay pneu mu tojee ak oto bi mu ñëwee lépp benn la man kay nelawuma sax man maa ngi nii toog di manipuler sama portable pneu bi nu mu tojee ak accident bi nu mu dooree sama portable daanu xaw ma fan la dugg. dafa gaaw quoi accident bi dafa gaaw juste pono bi nu mu tojee ak oto bi nu mu eggee lépp benn la. noonu daal man Amirou Diallo waaw. maanaam bis ñu dindi seen polomaas pour ñuy daw ay sans moom ngeen war a wax ci télé yi ñu dimbale ñu si ba buñ ko dindeeti parce que biis yii alir bi ñuy daw bi leen tubaab bi defaral quatre-vingt bu ñu fa yeggee dañuy signalé loolu mooy ni déranger polomange yi la ñuy dindi te buñ ko dindee biis bu ci daw cent quarante mënoo am frein yu la téye waaw man daal loolu moom mooy sama xam ak diggante six fii ba saaña route nationale bi mën laa jógee fii ñu wut neneen nuñ ko jaarale waaye fii ba bufti bi di wax soog rek dafa yàgg fii man duma ci réalité yooyu ah bëgguñ cee xuus wante nag bu ñu ci interpellé dina ñëw ah. ndaxte am na ku ñu ne yoon bi Sikki ak Bassagna nañ fi def éclairage après mu ñëwaat nee ñu yoon bi dafa xat mu ñëwaat indiwaat beneen thèse naan yoon bi. il faut que ñu def ci ndaxte dafa am boroom maanaam que dafa am ay jinn. waaw yoon bi li xat nii bëri na tali yoo xam ne nii la mel ci xat te amut soog fii dafa am lu fi ne daa am lu fi nekk fii daa am boroom gis nga boo laajee mag ñi dëkk garab gii ak garab gi sànq maa ngi koy waxtaan ak waa ji am garab bii am na beneen garab bu ko nekkee fële waa sii kilo xam nañ laaj leen li ci li ciy jàpp jokk jokkuwante fii mhm, laaj dama ci dëkk bi dam wala waa six ngi ne nga laaj ñaan rek def ci bagage nit ñi mën a mucc wala ñu toxal tari xam naa du yem moom loolu rek mooy solution kese bu dul lool nit mënu ko amal saafara waaye fii li fi deegu mu ngi bëgg a bëri de lu gàtt gàtt fii ci accident yi man li ma fekkee lu ëpp cent mille dee nañ ci cent personnes te ay yu ñàkk fayda ay accident yu xam ne kenn xam day bett ñëpp ñëpp day bett Saalum la nag. Mhm. man maa ngi tudd Momina Ndiaye. mën ngaa revenir ci cas d'accident yi nga xam ne fii ci ci kilo dafa fréquent. Hmm. waaw euh, ñu ngi wax gum xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, ñi dem ni ñu ngi ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala na leen yàlla yërëm jéggal leen yàlla leeral seen karam barkeel seen ginnaaw waaw gannaaw loolu nag wax dëgg yàlla diggante bi moom li fi am accident bari na lool lool lool na lool. li ko tàmbalee six kilo fii ba tournel saaña bi ba mbajaaneen daanaka li fi am accident bari na lool su rawatina diggante bii nag diggante bi moom daanaka mënoo def weer te gisoo lu lu def su su su su nag su def nag deewut xar dina dee wala bay wala xaj wala nit wala mbaam ñun yoon bi lañ dëkk bët bu set danañ fi jaar waaye diggante bi li fi ne ci accident bari na lool lool lool lool. xataa fii nii nii kerek fii nii am na oto bu saaraan fii nii gis ngeen ko yàggu dara am na beneen bu saaraanaat foofu te accident bu grave bi foofu la amaat encore. kon yow loolu la moo ko ah xam naa ne ndogal suñu borom la waaye nag jar na tamit ñu jël ci ñu gën koo gistu xool daal parce que kaw suuf si lu ne ngi fi doom doomu aadama yaa ngi fi jinne yaa ngi fi. te nit ñu baax ñi ni ñu amee ci nit ñi nit ñu baax ñi noonu la amee ci jinne yi ñu bon ñi mu amee ci nit ñi noonu la amee ci jinne yi tamit kon su boobaa dina jar kilifa ñu gëstu bu baax a baax bu dee dafa aajoo sarax ñu def sarax bu dee dafa aajoo ñaan ñu def ñaan waaye moom lu dul lool moom wax dëgg yàlla ndogalu suñu borom ñëw na fi waaye nag fii li fi ne def accident bari na lool lool lool lool lool kii nii fii la dëkk dëkk bii la dëkk numéro de ma dëkk baa ngi ne six kilos man maa ngi dëkk ña ngeen olof ñu ngi wax ña ngeen jibi waaye nag bët bu set yoon bi lañ nekk démb ci sept heures fii lañ nekk ba daanaka ba ngoon bi ñu ngi fi kon mu ngi ñaan yàlla nag borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko fi yàlla jële ci barke alquran ban accident nga mës fekkee mu doon loo xam ne mystère la ci yow ci accident bi ni mu re ni mu amee fii ci Sikilo. waaw man de bi ma juddoo ba tey accident yu ma mës fekk yëpp bii moo ci gën a garaaw waaw am na yu fi am nag fan yee ci ginnaaw rek ay weer rek am na ñaari biis yi defoon accident fee métti woon na lool. Euh, daawaatu jéegit am na bu bu amoon fii diggante bu fii matul 4 kilomètres 27 personnes moo ci de desoon mooy dëkk ñoom kii nii taxaw waaye bii nii nag moom accident am fanweer nit ak juróom-ñett ci sur le coup maa ngi koy soog a gis wax dëgg yàlla waaw te maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa yàlla na fi yem. waaw maa ngi leen naan accident yi dafa métti lool. Euh, insister ci lool bi da ngay évoquer euh, côté mystique wala ban lan nga bëgg a wax foofu. waaw comme li tax ma wax loolu rek comme li alquran wax rek a aussi addu'a usilaul muminin ñaan mooy ngànnaayu julit julit bu jaaxle day ñaan eh, ñaan nag lu ne ngi ci su ko defee ñu ñaan rek ci saay rek baatin yëpp yàlla mi borom jàmm te buñ ko ñaanalee moo xam lu nëbb ak lu feeñ eh, moo xam li fi li waral li su mu dimbale ñu lu teggil ñu ko rek waaw loolu la jërëjëf jërëjëf eh, jërëjëf dara ci yokk bëriwul dara dara dara bëriwul dara man li ma li ma ci yokk. tur bi lan la. man Samba Ka. si de daanaka matut ki ñaari kilomètre waaw ni euh, Médina Cissé gi. Médina Cissé Cissé. Cissé waaw foofu nga def mat mat mat mat mat benn kilomètre daal laay wax. lenn rek laa ci yokk bëriwul. man lu ma lu ma naqadi. montagne yu yu gaa yi dindi fi man loolu moo ma naqadi. du rek moom nag. moom montagne montagne gendarme yi. parce que fii suñ dëkk fii foofu lañ doon fanaan ba bot set. Mhm. suba bi ñeneen ñëw ñëw ñu yend foofu ba bot set léegi bis bu bàyyee ko Welingara euh, bu fekkoon montagne ba bu fële bii bala bala bii di ñëw fekke bii tam fekk na ko foofa san gendarme ñu ko arrêté est-ce que léegi yaa ngi dugg oto ba yàgg ñu ne sa wóor bi ah montagne ñu ngi ci kanam de. non ma nu mu mënta def bu fekkee dawlu ginnaaw daa daa daa non ba mu romb montagne man loolu la la loolu la la montagne yi daal man métti na ma. amatu fi quoi. ah benn am boo jógee ko Dakar direct Tamba doo jis montagne loolu du yoon. Ah, daaw daaw ba léegi waaw daaw daaw lañu arrêté affaire yi <laughs> ah, léegi montagne daaw na nekk fii ñaa eh, fii ak foofa benn kilomètre montagne nekk fii eh, hôpital ah, loolu mooy liggéey bi waaye léegi nag ñeneen ñeneen euh, ñi nga xam ne guur gi dafa war a kii ba noppam ci kii mu bàyyi nit ñi de wax muy muy toppale nit ñi lii baaxul. waaw ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla lay àggale jàmm waaw jërëjëf. maa ngi tudd Moriba Doumbouya maa ngi dégg ña ngeen ña ngeen wolof. Euh, bi moom vraiment métti na fu métti yem ndogal suñu borom lo mais en même temps ñu ngi ñaan autorité ñaan borom réew mi si boppam. na ñaan na wax si ay doomam yi mooy autorité yi ni jàppale si route bi en même temps transport bi en même temps man foofu lay waxee chargement bi ñuy def si bus yi bon man sama bopp man wax dëgg la rafetalu ko biis war nañ mën a képp kuy tukki si biis na nga yor si saak bagage bu diis boo ko nar a amee nañu am ay transfert yoo xam ne moom ñoom ñooy yóbbu bagage bi fi ñu bëgg a dem man sama xalaat bu gàtt li ma si gis daal vraiment vraiment vraiment autorité yi ñoom ñoo créé problème bi man loolu rek laa man a wax man. parce que comme ça parce que yoon bi fu mu doon ni tey jii da ngay am na bis bu romb léegi léegi léegi fii nii mu ngi chargé porte bagage si kaw ba pare dañuy yeb si biir ban traversé day am si biir loolu war nañ ko mën a teree nañ wax si loolu loolu bis yi nañ yem seen place donte que ne dañuy dañuy yokk paas nay wuti matériel si pour mën a as euh, euh, aar askan bi. ñu mën a mucc si lu mel nii lii na yàlla koy doxal waaye na yenn ñu ñoo ko doxal suñu bopp man daa maa ñaan autorité bi nañuy dimbale si lu mel nii ñu bàyyi xel si oto yi maanaam taxaw si yoon bi fii oto bi ñëw lim laaj maanaam lim laaj mu dépassé ko ba pare wàcce am lim lay jox nga téye ko se bopp vraiment autorité yi nañ bàyyi xel si loolu nañ gëstu loolu bu baax a baax a baax a baax man na dem ma fenn fu sore waaye fu ma nekk wax dëgg yàlla toujours ma si yoon bi fii mais dama fi gis loo xam ne vraiment jaadut jaadut maa ngi ñaan ni autorités yi na ñu dimbale fu ñu mën a déggee wax bi nañu dimbalee si transport yi nañ toppatoo gendarmerie yi nañ toppatoo seen place police yi nañ toppatoo seen place bu buñ gisee naka sudu noonu si borom oto nañ ko arrêté mu lijjanti loolu ba pare doo ko dem